pays yooyu la du méthode sax réew bu am démocratie te procureur Mbour waxul dëgg yàgg naa wax ni principal problème mu Sénégal mooy justice bis bu Sénégal di tàkk moo koy taal te principal bras politique Macky Sall tey mooy justice Macky Sall amul dara mënul dara tële na ci ay adversaire am man de mënaluma dara ci kàttanu yàlla waaye toujours benn pexe la am te da koy jaarale ci justice te dinaa ci ñëwaat bu si kanam waaye ñi mu jàpp defuñu dara ñooñu man mii lañu àndaloon parce que société ñu ñu ciblé mooy ñi gën a jege Ousmane Sonko ñi nga xam ne doo gis Ousmane Sonko mukk te gisoo leen ñaar ñi ci gannaaw ñaar ñi ci kanam. ñooñu bi incident di am man la ñu àndaloon parce que ñooñu duñu bàyyi seen leader dem di dàqanteeg ay nit ak lu mun ci am ñun su suñuy liggéey ñooñu toujours ñoo may wër man waaye jàpp ay nit nappe leen yóbbu leen dugal leen ci benn néeg daa di woo des plaignants ne leen identifier leen ñii la ñu ne waaw ñii la mu jóg taxaw moom procureur nekk juge parce que dafa nekk formellement identifié comme étant coupable procureur day poursuivre rek du moom mooy juger waaye loolu mooy justice Sénégal aujourd'hui toll nañ foo xam ne suñu mbokk magistrat yi nañu moyetu suñu waxee ñu génn di def ay déclaration di yooxu waaye moomu ñu dëkk bi de làqatu ci gannaaw justice damay def sama liggéey mu leer ni yoon lii la wax nga wàcc ko fi dem def leneen bis bu réew mu tàkkee doo ci mucc de nañu moyetu nañu moytu di yee fitna parce que mami Macky Sall moomul réew mi te nañu jiital yàlla seen liggéey te bu soobee yàlla dinañ bàyyi xale yooyu parce que defuñu dara Pastef lan lañ ko fi deful song nañ suñu siège ak ay jaas yi gaañ ci ay xale ñu déposer plainte ñu denc plainte bi rey nañu suñu jigéen Mariama Sagna ba léegi teg nañ ko fële jóor nañu suñuy nit damm nañu ay loxo rey nañu suñuy ndaw yu bëree bëri bëri enquête sax ubbiwuñu ko barki démb dégg ngeen bi waa am si ñëwee fii exiger ñu def enquête waaye bis bu ne ñu ngi pexeel te waa dëkk bi yëpp laay waxal nag jiital ci kilifa yi parce que kilifa yi waruñu di intervenir lu dul Macky Sall sukk na fii léegi Macky Sall dumawuñ ko ba mu sukk rek kenn du intervenir waaye moom mën na xëy di dóor nit ñi di duma nit ñi di def lu ko neex kenn du wax ci loola réew du doxee noonu nañu jiital dëgg ñun ñëpp lu ko moy rek fi ñu jëm du baax am na lu xewoon ci réew mi ay kilifa sàkku ñu ñaan ñu te jamono ñun ñëpp xam nañ ne pouvoir bi daanu woon na ñun nangul leen ko teg seen loxo ñu laaj ñu teg seen loxo lan mooy suñuy jàmbat ñu teg ko seen loxo ba léegi dégguñu ci dara ci diggante gi waa ji dem na waajal boppam jënd ay ngànnaay waajal boobu ba léegi mi ngi dal ci kaw nit ñi waa ñun xanaa dañuy tënk suñu loxo bàyyi ki ñu jàkkaar loolu nag moom ay loxoom libre muy dóor nañu seetaat réew mi ndax nag lu ëpp tuuru de ba tax nag ñu wax ni bu soobee yàlla daañ leen bàyyi te wàññiwuñu dara ci suñu kaaraange ñun ndax ku gis li ma wër xam ni manqué wu ma sécurité dañuy perdre seen temps rek nee nañu seen opération boobu ñu ngi ko tuddee béy bu sonnee matt loolu mooy code bi biir police mooy nañ leen di provoquer di leen provoquer di leen provoquer saa yu ñu demee ba sës rek dinañu agir saa yu ñu agir rek ñu jàpp leen moo tax ñu dem ba ciki jël koo xam ne président say liggéey Macky Sall la àndal mu jël ay ndawam ñun ñëw nañ ci dëkk waa dëkk bi yëpp génn teeruñu comme niñ ko defee boobu moo newoon suñu dernière étape wala suñu avant dernière étape def nañu des dizaines de village ci département de Mbour fu ñu dem askan wi yëpp génn teeruñu ñu waxtaan ak ñoom ci dal ci réew mi génn dem suñu yoon dem ba foofu ñu préparer seen coup yow ay nit bu ñuy dajee di waxtaan sa yoon newu ci kay doxal sa soxla loo fay dem uti di saaga nit ñi ak di sànni xeer lan nga fay uti nit ñi dañuy def légitime défense boo leen attaqué te li ci ëpp ñoom ak dëkku ndaw ma dëkku ndaw dëkk ba la parce que dañ fa am militant te ñoo leen fa ëpp militant ndax ci ki ñun ñoo ko gagné ci élection législative yi di commune de Diass ñun ñoo ko gañee ci élection législative kon foo gañee ëpp ñu la fa ay nit ba di la fa song loolu mooyoon benn bi nga xam ne moom laa bëggoon ubbee ñaareel bi mooy li xewoon démb wala beneen bi xewoon démb te jur lii démb doyen des juges Maham Diallo woolu dama ma dem uyu ji ndax ma fàttali fàttaliku man mosuma bañ uyu ji ndax ku ragal mooy uyu mooy bañ uyu ji waaye réew sax boo xam ne république la amul kenn koo xam ne mën nañ la woo nga ne du ma uyu ji ba ma njëkkee ne du ma wuyu ji dañoo respecté wul woon sama droit ma ne du ma wuyu si waaye bañ ko respecté doonte wëlbati nañu mbir yi damaa jóg tranquillement sama kër le trois mars te maa ngi wuyu ji ñu saboote mbir ma parce que xamoon nañ ni su ma demee gàcce lañ ciy jële ñu saboote mbir mi waa man waa Sénégal lay waxal démb xëy naa dem yoon bi ma bëggoon jaar le trois mars ñu bañal ma ko yoon boobu laa jaar démb amul lu ci changé le 3 mars dama génn sama kër génn site kër góor gi jaar Mermoz ne damay génn corniche dem tribunal ndax mooy yoon bu gën a gaaw pour kuy dem tribunal à partir de sama kër ñu ne duma jaare noonu faw rek man ma jaar yoon bi ñu bëgg looloo indi woon coow 3 mars ak li ci tegu kon ñëpp xam nañ ko tooñ ndax suñu ma bàyyi woon le 3 mars heure bi dossier bi pare nañ ko bu yàgg dem bi ma xëyee sama kër même yoon bi laa jaar amul benn différence kon lu tere woon ñu bàyyi ma ma jaar yoon boobu la 3 mars lan moo ko tere woon kon ñoom ñooy di yee fitna ñoom ñooy di indi ay problème man en tant que citoyen sénégalais buñ ma woowee am naa jaar fu ma neex am naa droit jaar fu ma neex li am solo mooy suñ la nee midi na la fekk tribunal midi na la fekk. waaye su ma neexee ma jóge Mbuur sax walla ma jóge cees di daagu di ñëw waaye midi lañ ma wax naa yegg tribunal midi naa yegg tribunal su ma nee damay jaar buntu université nañ ma bàyyi ma jaar buntu université su ma nee damay jaar centenaire nañ ma bàyyi ma jaar foofu parce que démocratie la ñu nekk te kenn notifié wu ma itinéraire ne ma fii nga war a jaare bu la weesoo nag dem nañu wuyu ci jàmm ni ma ko waxoon sénégalais yi ñibbisi ci jàmm fanaan suñu kër ci jàmm ndax nag nee naa leen dossier bii du ngeen ci mës a dégg tëj nañ ci Ousmane Sonko de du ngeen ko mës a dégg du ngeen mës a dégg dossier bii tere na Ousmane ko nekk président de la République incha allah te lu ma leen mës a wax gis ngeen ko ba ñu demee wuyu ji doyen des juges ñetti laaj la ma laaj ñett wax ji bëri na ku nekk di inventé lu ne bind nañ ko waaye ñetti laaj la ma laaj gis nga interview bi su euh, audition bi su guddee maa ko guddal audition bi mënoon na durer 15 minutes bi mënoon na durer fukki minutes ak juróom ndax doyen des juges ñetti question la ma laaj mu pare substitut procureur ne dafa am ay laajam ma ne ko duma tontu say laaj ndax parquet boo xam ne ci complot la dëkk duma ko tontu te dinaa la wax fan ngeen complot yi naa la ci jox ay preuve mu lem ay bagaasam toog ca la ca pare kon interview mu doon na yem foofu audience bi mu doon na yem foofu man maa ko yokk maa ko guddal parce que it li ma waroon wax il fallait ñu bind ko ci dossier bi lan laa wax doyen des juges te dinaa tëjee nag ay laajam li ma ko wax mooy dossier bii lañ ma ciy jiin dara amu ci ay kàcc neen la te yow doyen des juges yow bi ma inculpé boo amee ay preuves teg ko ci table bi parce que xam nga ak ak droit boo mën a jël muy droit canonique li ñuy wax droit wu diine diine chrétienne comme diine jullit muy sax suñu aada ñun muy droit bi ñu yor kii ñu ki tuumaal mooy indi preuve waaye di ku ñu tiimal mooy indi preuve su ma duggoon ci bureau mu indi ay preuve teg ne ma lii de wane na da ngaa def liñ la tuumal kon wax ji jeex na bu yàgg waaye amul benn preuve benn benn preuve boo xam ne doyen des juges génne na ko wala procureur ne liñ la tuumal lii la amut du benn preuve du lu ñuy xool du lu ñuy dégg du lu ñu bind zéro preuve un dossier vide bu amee preuve na ko génne amul benn preuve lu dul déclaration plaignante bi génnewul preuve naa ci dellu si nag benn preuve génnewu ko waaw ma ne ko nag bu ngeen amee ay preuve ana preuve yi parce que loolu day tax mbir mi gaaw dañu naan wàcc daanoo ci gën a gaaw man de su ma jiiñee nit dara bu ñu nee këtt ne jonn ma génneel ci samay preuve teg ma ne ko nag comme amu leen benn preuve dossier bi 2021 8 mars 2021 biñ may inculpé la ma bindoon ci dossier bi mooy li ñu wax yépp weddi naa ko xawma sax lu niroog loolu li ñu wax yépp weddi naa ko xawma lu niroog loolu waaye yow ma ci loolu de ma ne ko en plus de sa nag dossier bi ab complot la te complot bi ji ci nekk diw ak diw ak diw ak diw la kon dossier bi ñaari branche yooyu la dama bëgg senegal yi déglu ma bu baax dama di kuñ doon jiiñ ba far tey man maa wëlbatiku di jiiñaate li ñuy wax l'arroseur arrosé man lañ doon jiiñ ba far man tey man maa wëlbatiku di leen jiiñ waaye senegal yi laa bëgg ñu déglu li may wax nii man mi ñu jiiñ ñoom indiwuñu benn firnde benn preuve ci liñ ma jiiñ man mi leen jiiñ damaa indi ay preuve teg ko ci table bi lan laa leen jiiñ dama leen jiiñ ne complot la boo xam ne ñoom ñoo ko organisé su ma nee ñoom nag dinaa lim ay nit fii yoo xam ne ñoom ñëpp seen loxo dafa takk rip ci complot bi nee naa leen complot bi Serigne Bassirou Gueye ancien procureur de la République mu ngi ci daanaka moo ci ëpp sax ay ay agissement ki ko jàppale dëgg dëgg dëgg ci li mu doon def mooy commandant Abdou Mbeng tey defe naa kolonel la waaye jamono jooju commandant la woon ka ca tegu te loxoom tax rib ci complot bi mooy général Moussa Fall nga xam ne tey moom lañu dénk lépp luy gendarmerie moo tax mbir mi jaral ko lu ne fi ne nii gendarme yi ne woon ci bàmmeel sax génne nañ leen soxla leen tenue Moussa Fall ñetteel bi di maître Gabisso maître euh, euh, fàtte naa tur bi waaye Gabi lañ koy woowee moom mooy juróomeel bi bokk ñu teg ci maître joor jaañ bi nga xam ne ca lañ ma wax soxna la ci Antoine jom bu leen fàtte ni Antoine Diome it lu ne mu ngi koy daj ci mbir mi bañ na ba moo dem jël ay ay waa bip ne mooy mooy mooy mooy aar ndaw sax di ko rawale tey ma nga Saly gannaaw suba ma nga dakaar gannaaw suba ma nga fële ñu teg ci Mamadou Mamour Diallo mi nga xam ne loxoom taq na ci rib waaye ñooñ ñëpp boo leen dajalee nag seen digganteeg Macky Sall mi ne ci gannaaw lu juge war a mënal lu ñëtu la te teg ko fu ma teg nag li ma wax mooy yàlla dafa def ñoom bi ñu commencé ba léegi lu ñu nas rek yàlla génne loo xam ne foogewuñ ko déjà ci dossier bi rek ak niñ ko traité am na élément yu bëri yoo xam ne nekk na ci déjà naa ci dellu si waaye yàlla dafa def bi coow li amee gendarmerie nationale ci njiitalu général Jean-Baptiste Tine comme coow li dafa bëri woon ba gendarmerie nationale jaxasoo ci mu am coow ci biir gendarmerie général Jean-Baptiste Tine bi nga xam ne moo ne woon au commandant la gendarmerie et directeur de la justice militaire dafa santoon ñu def benn enquête interne pour leeral mbir mi bi ñu paree enquête interne boobu dafa yéet rap dafa dem jox rapport bi Macky Sall dégg naa bi mu ko ko joxee Macky sal daf ko ne j'espère que c'est la seule copie de ce rapport moo wax leen ni rapport boobu moo tax ñu dàq général Tine andi général mussa fal ndax fi mu bëggoon rapport bi dem ci ko Macky bëggoon a yóbbu général Tine qui un soldat digne dafa def liggéeyam correctement rapport bi dafa joxe benn procès verbal numéro 063 bar 4 bar HC bar CAB du 14 avril 2021 affaire capitaine Touré feuillet 1 à 18 ñaar ñi def enquête bi colonel Omar Diouf la ak colonel Crépin Arsène Sambou rapport boobu versé nañ ko ci dossier bi avec accusé de réception xam naa fooguñu woon ni yor nañu rapport boobu waaye fii Sénégal la tudd te patriotes yi ñu ngi fépp seen tappale yi ñu nekk du mucc ni mu amee woon ci certificat médical bi ñu doon nëpp nëppal noonu la amee ci rapport bi noonu la amee ci yeneen ak yeneen rapport bi lan la wax ci responsabilité Serigne Bassirou Gueye mooy Serigne Bassirou Gueye bi mbir mi amee moom yitteem yëpp mooy woon nañu fexe ba jàpp Ousmane Sonko ci saa si moo tax ma ne Sénégalais yéen la ngeen dossier bi ba ñu bëggee def li ñuy def mars 2021 askan yëpp taxaw ne du fi am boobu la dossier bi jeexee parce que buñ ma tegoon loxo mars 2021 te tey jii ñu toog ni di wax du ma fi nekk maa nga fële rëbës ñu jël seen temps dañuy def seen instruction parce que Serigne Bassirou Gueye li mu waxoon commandant Mbeng daf ko ne je sais trop fier dina ñëw waaye bu egsee rek euh, téye leen ko en garde à vue après déféré ko ñu dóor ko mandat loolu moo ne woon plan bi te bu ñu fexoon ba làq ma nag duma mën a taxaw fii di wax la ñu liggéey yépp pour leeral sénégalais du am kon foofu la ñu lajjee kon moom dafa dafa dafa dafa li tubaab naan obsédé dafa amoon yitte bu rëy rëy ci nu muy def ba teg Ousmane loxo ci ni mu gën a gaawee moo tax dafa mujj di parax paraxe jàpp enquêteurs yi di leen def pression bi capitaine Touré pare rapport am dégg naa nag ñu naan capitaine Touré moom la àndal ak yu demee noonu wallahi ak ajjuma bi ñu ne capitaine Touré benn yoon laa ko mës a gis mooy bi mu ñëwee jox ma sama convocation. benn yoon laa ko mës a gis ci àdduna xamuma ko xamaanuma ko jëflantewuma ak moom du démb du tey jii Sénégal nag ku am ngor am dignité rek ñu ne dafa am lu ne ci suuf waaye su doon loolu xam ngeen ni nguur lay àndal kon lii ko dal yëpp du ko dal dañu waxante dëgg mu def pression enquêteurs yi ne leen gaaw leen pare dossier bi bi ñu defee PV bi PV d'enquête yónnee ko ko lii mi ngi ci rapport gendarmerie bi ma wax de moom moo delloo rapport bi capitaine Mbeng euh, commandant Mbeng ne ko changel rapport bi mu ne ko changel rapport bi ci ban anam ñaar anam benn ñaari anam yu garaaw a garaaw a garaaw bu ci njëkk mooy parti rapport yëpp parti rapport initial bi nga xam ne yëpp c'était à décharge pour man mooy parti rapport yi nga xam ne dafa doon fësal ni lii mënul am moom la ci PV gendarmerie moom la ñu def nii souligner ko en jaune ba pare ne parti retranché dans le PV modifier du 9 mille 2011 et ayant fuité mooy parti PV bi nekk ci dossier bi nga xam ne Bassirou Gueye moom la dugal ci dossier bi fi nga xam ne enquêteurs yi commandant capitaine Touré ak capitaine Diouk fi ñu bind ne am na loo xam ne mënul ànd ak dossier siif ndax ku ñuy siif yow yaay organiser siif bi programme ko xool état bi ka nga nekkaloon ci biir nga ne ko génnal yow yaa ko ne génnal kenn newul ni génnal loolu tey na xel xel mënul nangu ni nit mën nañ ko siif ci anam gi ñaareel bi ku ne man dañ maa yónnee SMS boo xam ne mun na compromettre waa ji ñu ne la ana SMS bi nga ne leen effacé naa ko preuve boo xam ne mun na dugal nit ñu yónnee la ko nga ne effacé naa ko ñetteel bi ñi mu àndaloon ñu d'accord ni ñoom ay fani fan ñi ngi taxaw ci buntu institut bi di di gete di xaar Ousmane ko ñëw ak ñi ko fa jël si loolu yëpp ñu Serigne Bassirou Gueye génn leen ko ci PV bi parce que baaxul day disculper day wane ni lii mënul am procureur de la république buy def loolu faute très très grave la parce que procureur de la république amul droit intervenir ci PV bi moom mooy le maître des poursuites c'est vrai mais enquête bi gendarme yi ñu ko dénk ñoo am autonomie parce que ñoom rek ñoo posé question ñoo dem jëli les faits ñoom rek ñoo war a mën a def seen PV kenn du modifier PV même procureur araam na ci moom mu modifier PV waaye sëñ Bassirou Gueye yemul ci loolu de PV bi nga xam ne moom la enquêteurs yi def PV boobu moo nekk nii quat pages la quatre pages ak quelques annexes parmi lesquelles certificat médical bi nga xam ne dàq na lépp ak audition yi loolu la woon Serigne Bassirou Gueye ne il faut ma charger dossier bi lan la def dafa dem dugg ci ay site internet dem jël ay photo yu bon gis ngeen photo yi photo yi ngeen di gis ni dem jël ay jigéen yu simmeeku sëriñ basiru Gueye de dem jël ay jigéen yu simmeeku daal koy dugal ci PV bi ne institut ba moom moo doon def annonce yu loolu faux la mais c'est extraordinaire PV gendarmerie bi wane na ni lii musul bokk ci rapport bi waaye li gën a neex samay avocat dañu ne woon juge d'instruction bi na def réquisition ci police cybercriminalité xool ndax yii parce que am na ay numéro téléphone am adresse Facebook ndax am na rapport ak institut ba bi réquisition yi génnee lu ñu wax amul benn rapport jegewul sax procureur buy def loolu pour charger quelqu'un parce que lim ci doon ut te noonu lañ ko waxee ci PV bi noonu la ko capitaine Touré waxee ci témoignage am li mu doon ut mooy fexe ba ndaw see ñuy wax Ndeye Khady Ndiaye nga xam ne lu ne teg na ko ko tuuti mu rey doomam dañoo naroon assassiné doomam ñu fexe ba gëmloo nit ñi ni moom ab proxénète la da doon jaay ay jigéen mën a jaare foofu pour atteindre ma man lii dama ko wax le juge d'instruction daal koy génneel des preuves teg jox ko rapport bi nga xam ne lu du lu ñuy lam-lame moo tax ci fan yii fii ak lundi bu soobee yàlla dinaa déposer une plainte devant la chambre criminelle de la cour suprême ak devant ligage contre Serigne Bassirou Gueye parce que Serigne Bassirou Gueye ab criminel la tappalem yi mu tappale moo jural Sénégal fukki bakkan ak ñeent ci ay complot yoo xam ne procureur bokk na ci ñu ko sumb ñaareel bi mooy lu mu doon def yépp nag commandant Abdou Mbengue la ko doon defloo parce que bi enquête bi paree ba capitaine Touré ak capitaine Diouf di ko doon jàppale joxe commandant Mbengue da leen génne ci mbir mi verrouillé te moom nangu na ko ci PV gendarmerie bi enquête bi moom nangu na ni moom la bassiru Gueye ne changé mbir yi mu changé ko su ma leen di wax ni noir sur blanc la ni moom nangu na loolu moo tax ma ne boole naa ko ci parce qu'il est complice parce que nit ak nu mu munti demee. ak loo bëgg-bëgg carrière buñ la joxee ay instruction yoo xam ne dëppoowul ak yoon da ko war a bañ ñetteel bi mooy général Moussa Fall général Moussa Fall ay fani fan balaa bés bi ñu ne moom la mbir yi am ba ñuy accusé 15 jours avant général Moussa Fall dafa yebal ay nit dafa yebal benn MDL chef te loolu bi ngi ci rapport bi te ñaari gendarme confirmé nañ ko yebal MDL chef woo directement commandant Abdou Mbengue ñu tëb toute la hiérarchie de la brigade de recherche daa di woo benn MDL chef ne ko demal bërëb sangam boo demee na nga surveiller bërëb bi parce que dañ wax ni diw dafa tëj benn xale boo xam ne mineur la. di ko torturer moom commandant Moussa Fall kon moom bokk na ci ñi nga xam ne du jiitu loolu ak gradam bi mu nekk ak position bi mu nekk teg na benn complot pour ne dafay fexe nu muy ootalee Ousmane Sonko pour jàpp ko te lii nekk na ci rapport bi waaye man mii di wax ak yéen MDL chef boobu ñëw na ba ci man ne ma man mii la ñu yebaloon foofu man mii la ñu yebaloon foofu bi ma demee fexe naa ba dugg ci bërëb ba bi ma ko xoolee ba pare dama génn ne li ngeen wax mënul am fii non seulement gis ma ko faaye mënu fa am parce que bërëb boo xam ne famille dëkk na fa ay nit nekk nañ fa loolu mënu faa am lii bañ may téye section de recherche ma def fa juróom benni fan MDL chef boobu fekk na ma foofu wax ko kon général Moussa li mu def déshonneur la pour armée yàgg nañ koo tuumal nag ay complot yàgg nañu wax ni loolu mooy métier am colonel Abdou Aziz Ndaw bind na ci lu bari ci livre am waaye lii lu ko firnde la moom général Moussa Fall Mamadou Mamour jàlloo moom Sénégal yépp xam nañ ni taq na ci ndax mbañeel gi ma bañ ci ni ma ko yoolee ci ni ñu fexee ba escroquer xaalisu Sénégal ci dossier bi ngeen di dégg muy 94 milliards yi te démb wax naa ko juge bi nee naa ko yéen justice matu leen justice opposant yi ngeen fi nekkee di tëb di dal lu leen Macky Sall ne def leen ngeen def lu mu leen ne teg leen ci suuf ngeen teg ndax dossier 94 milliards yi fii laa ko indi doyen des juges ne classement sans suite parce que donte li ñu wax am na Ousmane Sonko du moom moo ko war a dénoncé est que dégg ngeen wax jooju ku fekk ñuy sàcc nga yooxu ne ëpp sàccee ñu ne la bàyyil sàcce bi mu dem parce que yow yaa ko war a wax borom kër gi rek moo waroon yooxu ci loo xam ne suñu alal la ñun ñëpp sénégalais yi may député un député représenté sénégalais yëpp warul mën a wax ci turu sénégalais procureur ma def recours ci moom mu jël mbir mi teg ci tànkam waaye yàlla woo yàlla comme dama nag OFNAC nag génne benn rapport rapport bi dina génn dina publier dañ ko génne ñëpp gis ko xam nga rapport bi lu mu wax nee na li Ousmane Sonko yépp wax dëgg la escroquerie bu extraordinaire la ba pare laaj procureur ne ko ubbil ay poursuite contre Mamour jàlloo ak ñi mu àndal procureur bu bees bi mi ngi teg tànkam ci rapport boobu Macky Sall daal di génne décret nommé Mamour jàlloo ànd ak moom xaw ma fan ñuy siñ mel ni ñu jaaxle Sénégal lii moo fi am balaa ngay ànd ak Macky Sall rek nekkal sàcckat nekkal sàcckat wala ngay reykatu nit mu kontaan nag daal lay nome c'est extraordinaire di fii rek la mun a am waaye ci PV audition yi nga xam ne Ndeye Khady def na ko moom ci boppam nee na bi muy ne bi ñu koy njëkk jàpp yóbbu ko section de recherche Mamour Diallo da ko woo ne ko proposé naa la quarante millions nga changé sa version mu ne ko defuma ko mu proposé leen ba benn saa mu ne ko kon jox naa la 200 million nga changé sa version pour enfoncer Ousmane Sonko ndaw si diiña ngoog bëgg nañu rey sa doom proposé nañ la xaalis menacé nañ la toj nañ sa bopp jëkkër nga am si sa te ne lii duma ci dugg parce que du dul dëgg duma ci ànd ak kenn waaye yéen ñëpp nag dégg ngeen enregistrement boo xam ne Mamour jàlloo ak plaignante bi aji Sarr ñoo toog di wax mu naan ko liñ la diggoon yëpp dinañ ko def bu procès bi rombee dinañ la jox sa visa ak sa passeport ak li ñu la waxoon yëpp nga génn réew mi xam nga loolu du lu ñuy werante man li ma wax yëpp dama ay évidence la ay preuve te kenn tegalaguma benn preuve ci ñoom li ñuy wax moo tax ma ne dossier bi jeex na bu yàgg wax jee bari rek maître Gabisso bi nga xam ne nag goro la ci Mamour Diallo gorom la maître Gabisso boobu bi mbir mi amee dafa ne moom yëgul tinul ñu dem ba ci biir mu ne 15 jours avant les faits recevoir naa xale bu jigéen bi jox ko ay conseil ñu doxati gynécologue bi bi mu demee doyen des juges intéressé ko ci PV bi dafa ne maître Gabisso moo ko woo la veille le premier ne ko est-ce que suba di nga nekk dakaar mu ne ko waaw mu ne ko déglu ma le lendemain mu xëy ba guddi waa ji woo ko ne ko dafa am xale bu jigéen bu am problème sàngam sàngam damaa bëgg nga dem jëli ko mu ne man bëgguma woon sax waaye dañ ko ne xale bi fi mu ne nii mi ngi diggante dee ak dund soo demul du baax comme médecin la bu ne su demul mun nañ ma ne assistance à personne en danger non assistance à personne mais nag bi ma demee ba foofu biñ ma andi leen ndaw si dama leen ne kii la kii ngeen naan mi ngi diggante dund ak kon moom ci ñu ràbb affaire bi la ci diggante ak Mamour Diallo ak lu ñu séq te loolu mu ngi ci dossier bi juge bi gis na ko maître joor Diagne bi nga xam ne mooy soxnay Antoine Diome yéen ñëpp gis ngeen li mu njëkk a rëccal tey mu andi problème ci biir baro bi ba tax du ma ci sori waaye Sénégal yëpp gisoon nañ wax mbir mi naka la war a demee bu leen ko tëj bu leen ko jàpp na def nii dañ fexe ba procès am rek ñu fexe ba yàq deram ngeen bàyyi ko mu ñibbi mooy plan bi rek ñoom Antoine Diome moom moomu ak keneen ak keneen waaye moom it seede am na ni bés ba moom moo àndoon ak ndaw si moom it ci complot bi bokk kon yii yëpp dañ koo andi ak ay firnde jox ko doyen des juges ne ko bindal jox ko papier yi koy wone ak preuve yi teg li gën a neex gis nga nee naa leen audience mën maa ko gudd ndax mënoon na durer quinze minutes waaw may laaj sénégalais yi bi ni mel yow jiñ nañ la nga jiñaate li nga jiñaate yépp nga am ay preuve yoo teg te wax naa ko doyen des juges nee naa ko yow fi mu ne nii say enquête xam nga fan nga ko war a orienté mooy ñi def complot bi ci li ci li muy def actuellement loolu la parce que amul beneen pexe ñu ne ko ñi def complot bi fàtte naa ko li ñuy tuddee scandale Watergate États-Unis defe naa ñëpp dégg nañ ko lan moo andoon Watergate mooy ñi yoroon guur gi dañu nasoon benn complot contre opposition complot bi mujj éclaté waaye complot boobu moo mujj yóbbu ba président Nixon mujj démissionné ma ne ko foog nga war a yóbbu euh, sa enquête ndax amoo dara ci viol amoo dara ci agression amoo dara ci menace de mort benn ñu mën a tegal ci taabal bi amul léegi nag jiiñ mënul andi preuve yaa koy jox preuve ku la jiiñ mënul benn preuve benn question la ma juge bi laaj mooy ce que di nga nangu joxe sa deret pour ñu def test ADN ñi kilifa yu toll nii yëpp daje def seen complot ba ficelé ko complot bi éclaté yàqu amuñu lenn lu ñu mën a teg ci table bi ñu ne man ma jox leen sama deret man Ousmane Sonko ñu yóbbu ko xaw ma fan daal di génn ne ah conclusion yi mooy may leen xanaa ngeen dem jëli deretu Bob Marley de sama deret man mii ilaa yow mi di du ngeen ci sama tuflit sax du ngeen ci jot ma laa sama deret parce que ñàkkuma ful la ba foofu su dee dossier bi yépp loolu moo ci des jox ñu sa deret ñu dem daje ak xaw ma kan yóbbu ko ay France ak fu kenn xamul ñëw ne ah lii lii daje na wala lii dajewul kon de xam ngeen ni seen dossier jeex na ndax su dossier bi desee desee lu jox ma sa deret jox ma la te ubbi dossier am lu toll ni benn su dossier bi sax doon dossier bu évident amul lenn lu ma tënk ci loi Sénégal pour ma joxe sama deret loi dafa nekk parce que loolu du preuve du preuve bu mat moo tax loi imposé wu ko nit dafa ne nit ki su neexee su ko neexee mu joxe deretam su ko neexee du joxe dossier boo xam ne damaa ëmb deux ans plus tard wasin amul dama fen yi fen yi fen suñ ko génne woon dëkk bi <laughs> fen dootul des ci dëkk bi nga naan nit ki jox ma sa deret ma ne doyen des juges sa juróom fukki xel bu mu xalaat ma jox la sa deret jox la sama deret comploteurs yi su dee nee nañ dañoo def prélèvement fan la président prélèvement bi dem ab Abdou Mbengue moo ko yor ak Bassirou Gueye ñoom ñu doon complot yor seen prélèvement mën ko substituer lu leen neex mun def lu leen neex ñu ne ma jox ma ba ñu defee dañu yóbbu benn benn clinique kooku ne leen mënuma def analyse yi parce que jamono ji amuñu produit yi yëpp mu ngi ci dossier ñu wëlbatikuwaat dem wëri beneen docteur bu jigéen kooku ne leen ah dinaa ko mën a def de waaye il faut ma yónnee ko fu ñu koy defee te ensuite suñu amul luñ koy comparer mënuñu dem fen man ñàkk naa fulla ba jël sama deret naan maa ngi koy jox Serigne Bassirou ab du Mbeng ak doyen des juges ak xawma kan may leen loolu du am dossier ba foofu la jeexee jox ma sa deret du ma la jox sa deret sama deret dossier ba jeex na kon ñaareelu laaj bi ma laaj mooy ndax séq nga ak ndaw si dara ma ne ko je ne nga poser ma cette question que ce soit la dernière fois du ma ko nangu ndax sama dignité teg sama intimité ci dossier complot bu mel nii mayuma kenn mu ciy wax man dans 16 mois ñaan naa yàlla nekk président la République Sénégal boo amee sa preuve génneel boo amul toppal na le ñetteel bi mooy ndax reconnaître nga dem nga fa ak yan date nga fa dem ma ne ko sëñ bi man du ma toog ci mbedd mi fu ma dugg daal di bind date bi dugg naa fi daan naa fa dem moom wax naa ko ñëpp dégg ko waaye ban date la ban date ak ban heure jàpp ko ñetti question yi da la ma doyen des juges posé amul beneen ñetti question la ma posé amul beneen la ca des yëpp mooy li ma wax an te mu feeñ te muy ay preuve yu leer yu mu paree ñetti question yi la pare ci affaire bi moom bi procureur jëlee kàddu ne day laaj may laaj sénégalais yi parquet bu bokk ci complot bi est-ce que man war naa toog di di tontu ay question lu ne fàng parce que administration continuité la c'est le même parquet ñoom tey ñooy def poursuite yi sur la base de ce que Bassirou Gueye a laissé moo tax dossier bi juge bu jaaree yoon bu matee juge bés bi mu ma déglu lendemain la wala clôturer dossier bi def classement sans suite parce que amul dossier et il le sait la ca des yëpp wax yaakaar ni mën nga yàq deru nit tey laa gën a siiw ci Sénégalais yi tey laa gën a dëgër tey laa gën a am ndax bi ñu commencé wax ba léegi ah su ma génnoon fii ngeen gis te te ñaari élection jaar na fi te gis ngeen samay campagne kon ñi ngi sant yàlla kon échec total la dégg naa nag ñu wax ci lu bëri nee ñu dama doon menacé juge bi man menacé wu ma juge bi de juge bi dama ko wax li ma ko wax dama ko ne sénégalais dootuñu nangu réew mi di tàkk ci benn act boo xam ne benn magistrat moo koy posé parce que nag moom leen nit ñi de moom leen nit ñi de doxal leen yoon wax droit jàmm ne ñooy lu ko moy nag su ngeen taalee réew mi du ngeen ci mucc loolu nag maa ko ko wax am naa sañ-sañ parce que nag dafa doy ñaari bakkan yi fi mujj rot su juge cour juge cour suprême defoon liggéeyam xam ni arrêté bi préfet bi jël arrêté bu illégal la mënul tere nit ñi manifester su ci base boo xam ne amul kon bakkan na magistrat yi delloo si seen xel ci yàlla te bàyyi li ñu nekkee.